précise comme ni nga ko gisee entité boo xamante ne dafa regrouper ay différentes structures am garderie am na am presse bi am resto euh, am na eau ñuy defar ay eau donc euh, loolu mooy en quelque sorte li muy regrouper. social moom mën naa en fait liñ ci liñ ci dul wane moo ëpp li ñuy donc mën naa ni social bi moom yàgg na fi léegi nag ci biñu ñu créer mouvement bi sax ci lañ ko gën a jël ah yenn yenn action yi sax di ko wane donc euh, action sociale bi moom franchement mën nañu fii nit ñi moom gis nañ seen bopp. tout récemment dem nañ ñaari district de santé yu nekk fii may nañ leen ay lits d'hôpital may leen ay médicaments ah, ñaari lii yëpp ñaari poste de santé yëpp mooy bu Ngent comme comme bu jaxaw donc loolu rek mën naa ne dafay dugg ci cadre social bi am na yeneen yoo xamante ni def nañ ko fii tout récemment am na suñuy dëkkandoo yi nekk fii sollicité ñu woon ci ndox ñu dem gasal leen teen tey jii ñoom ñu ci ciy bànneexu ak yeneen yoo xamante ni bon suñu suñu doxalin mayuñ ñu koy wax ci presse. force bi yëpp dañ koy def ci cadre respect li nga xamante ni suñu doole ak suñu mën-mën toll na fa parce que moo ñu permettre tey ñoo am benn visibilité n'est-ce pas moo ñu permettre tey ñoo am benn écoute bi ak yenn yenn support yi nit ñi mën ñu déglu mais su fekkonte ni bon def nañ comme ben façon bi waxuñu duñu xam mais dinañ ñu yéex a xam <laughs> dinañ ñu yéex a xam boo gisee ñu def un an ñu lancé décembre bi ñu loolu ci cadre bi la teg ko après déwén ñu ñëwaat insisté waat ci ren ñu insisté waat ci c'est parce que duñu bëgg li ñuy def ay xale yu ndaw ñoo fi nekk yàlla may na leen ñu am benn background bu leen permet, permettre ñu mën ko teg pourquoi pas ñu dem ci ay défi la nag mais <laughs> il faut le dire yombu la côté préparation machallah allah avancé nañ bu baax a baax et def nañ lu ñu mën yépp pour tek une très bonne organisation ñi ñu wara inviter ñëpp inviter nañ leen ñi ñu wara séti ñëpp séti nañ leen aussi chapiteau bi commencé nañ ko xamna ni bu paré wul tay paré demain matin incha donc euh, côté restauration c'est déjà fait donc lépp li nga xamantene ci dal war nañu donc def nañ ko communication bi aussi yaakaar naa na bu baax ndax fan yi yëpp ñu ngi def ay caravane ku ne xam na ni caravane c'est pas facile dîner de gala lañu wax té ku ne xam na ni dîner de gala c'est pas lo xamantene ci si day jël ay goudé goudé guddi non non dîner de gala d'habitude c'est vingt h 2 deux heures du matin ku nekk ñibbi wala ku mu neex nga tok ba 5 heures du matin sans dépense li nga fay fekk mais amna na si ñoo xamantene ci donc dañuy soxla

donc du ñàkk ñu defaale ci social xam nga social ku nekk ak ni nga koy defee donc tey am nañ si ñoo xamante ne si c'est des jeunes talents te mosuñu am occasion xëy na toog fu di wayee fu waale nekk wala dara donc ça fera l'occasion ñu invité leen ñu def playback su fekkee jot nañu amay dara defaale seen promotion loolu wàññiwu dara pap du Doumbia bañu loolu donc euh, li nga xamante ne si aussi tamit mooy ñi nga xamante ne sollicité nañ leen mais heure bi ñu leen jox quand même na nekk heure ba nga xam na leen fa fekk avec nit ou sans nit nañu ñëw ñu prester ñu dem seen yoon parce que bu heure boobu passé ñëwoo kenn du la jëlati donc c'est c'est très clair une bonne organisation égale réussite donc euh, nit ki ñëw na fexé ba fi muy ñëw na nek à l'aise benen bi ci dess moy lam fay fekk na fekk mu jaral ko c'est important ñun lool yëpp dañ ko tenir en compte donc euh, motax tax yaakaar ni ba légui ñu ngi ci une bonne organisation teg ko ci professionnalisme aussi parce que prestige looloo fi am prestige euh, professionnalisme total lañ fi gis machallah donc voilà lu muy def tamit dafa war a ànd ak professionnalisme.